Sëriñ Bassirou maa ngi lay nuyu di la jottali sama nuyoo ak sama ziar jëm ci xalif général sëñ Muntaxa Bassirou Mbacké ak si njabootu Sëriñ Touba yëpp. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France au Sénégal, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, chefs de service, Monsieur le gouverneur de la région de Diourbel, Monsieur le préfet de Mbacké, Monsieur le sous-préfet de Ndam, distinguer autorités religieuses et coutumières, population de Touba, c'est avec plaisir que je procède à l'inauguration de l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim Mbacké de Touba, hôpital de 300 lits de niveau 3, l'un des plus modernes sur toute l'Afrique de l'Ouest. Cet hôpital entre dans le cadre du programme de modernisation, de reconstruction et de réhabilitation des hôpitaux que j'ai lancé. Ce programme, comme vous le savez, doit permettre au Sénégal de mettre à niveau son système hospitalier. Il s'agira, outre cet hôpital de Touba, ainsi que l'hôpital de Kafrine, celui de Kédougou et de Sédou, d'engager très prochainement les travaux de construction de l'hôpital de Tuaon de Mbour, de Saint-Louis, mais aussi il faudra réhabiliter les anciens hôpitaux régionaux, qu'il s'agisse de l'hôpital Loquet de Diourbel, de l'hôpital régional de Fatigue, de l'hôpital régional de la paix de Ziguinchor, de l'hôpital de Tambacounda, de colda de Louga et de Thiès, Nous avons là un vaste programme devant nous. Pour Dakar également, nous avons la reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec, de l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque, ainsi que de l'hôpital Roi-Baudouin de Guédiawaye. Je vais procéder déjà dès le mois prochain, en octobre, à la pose de la première pierre de l'hôpital d'oncologie de Diamniadio qui sera uniquement destiné au traitement du cancer. Je tiens à féliciter le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, pour l'engagement, la compétence, le dévouement avec lesquels il s'attelle de la mission que je lui ai confiée. Abdoulaye jërëjëf gàcce ngalaama à travers lui bien entendu je félicite l'ensemble des directeurs nationaux directeurs généraux et directeurs de la santé du ministère de la santé et de l'action sociale pour leur dévouement leur engagement au personnel médical qui est en guerre depuis deux ans guerre contre la pandémie de Covid-19. Je dois recevoir prochainement l'Ordre des médecins du Sénégal. Tout cela pour accompagner le corps médical dans sa mission. J'ai fait procéder à un recrutement massif de médecins, de personnels paramédicaux et de personnel de soutien justement pour accompagner ces hôpitaux. Et j'ai ordonné également que les hôpitaux soient autonomisés en électricité avec des centrales solaires qui vont accompagner ces hôpitaux modernes. On le voit donc, le Sénégal est engagé dans une voie de modernisation et de rénovation du système sanitaire. Rien que sur les dernières ressources que nous avons reçues, appelé ressources tirées des droits de tirage spéciaux, j'ai instruit le ministre des Finances pour que le secteur de la santé soit prioritaire dans l'allocation des ressources. En ce moment même, nous avons lancé, et cela a démarré, la construction de la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar, qui va en faire l'hôpital de niveau 4, vraiment qui sera au-delà des normes jusque-là admises dans la sous-région. Merci donc aux populations de Touba pour leur accueil. mbokk yi tey jii dama am mbégte lool mbégte ak cant wax naa ko sëriñ bi sànq moom sëriñ sëriñ Muntaxa nee naa ko lépp loo naal daañ ci dugal suñu loxo Touba lépp lu ci sëriñ bi namoon dañu gis ko ci téereem ba di Matlabul Fawzayni mu doon yaakaar bu rëy ak ñaan yu rëy suñu borom nangu nee naa ko sant naa borom ba ba ma mayee ma defal leen li fi am loolu nag yàlla ñu ko baaxee ñu sante koko bu baax kon maa ngi santaat bu baax sëriñ Muntaxa ci jàpp bi ma jàpp wax naa ko sànq ci waxtaan bi ci ñaan yi muy ñaan ci taxaw bi mu taxaw réew mi ak diine ji ak yoon wi ñu ngi koy ñaanal yàlla mu bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te ànd ak wér sëñ Basiru nga jottalil ma ko cant gi ak mbégte continuer di liggéey ngir dëkk bi mën a gën a jëm kanam ci fànn yépp muy wér gu yaram muy yoon muy ndox muy assainissement léeg damay xaw a jaaxle bu may dégg yenn wax yi ndax fii Touba li ma fi def ci assainissement gouvernement mosu ko fi def kon nag su fekkee taw na taw bu jéggi dayo war nañoo muñ ñu liggéey mottali yéene ak lañu tàmbali woon waaye li ñu fi def kenn defu ko fi kon muy assainissement muy ndox mi ila Touba kenn waxatu ko muy l'hôpital bi muy leneen ak leneen du jeex courant bi te loolu Touba daf ko yelloo waxuma sax di sëriñ bi ñaan mu sëñ Touba waaye réew mi fi mu toll Sénégal tey Touba yàlla def na mooy deuxième ville du Sénégal ci wàllu population ci wàllu consommation électrique moom rek moo fi consommé lu toll ci quatre-vingt-cinq ci courant loolu lu yaatoo yaatu la kon nag jaadu na ñu taxawu dëkk bi liggéeyal ko waaye baax na tam ñu gunge ñu ci liggéey boobu ci dal ak ci xam ne sëriñ bi lañuy liggéeyal population yi lañuy ñuy liggéeyal loolu mooy li ma fi bëggoon wax tey ndax mbégte bu rëy la bañ koy wax ne nañu waaye du yegg dañuy wax rek campagne a tax yaakaar naa ni wet yi gis bokk si léegi nag jërëjëf jërëjëf sëriñ bi xam nga nag président moom bu taxawee ngir mbooloo rek foog mu politique tuuti que gars ñi dañ may yëngal xam naa ne daal fii moom fii moom fii laa wax fii fii fii combat mënu fi am élection yi ñu jëm moom déjà yàlla defoon na département bi ci fukki collectivité ak juróom-benn fukki yi ak ñeent yëpp gañe nañ ko élection locale nag yàlla moo baaxee Touba moom daanaka benn liste fi am liste boobu nag liste Benno Bokk Yaakaar lay war a doon kon mel na nu 15 yi daanu na mu des waa Mbàkke waa Mbàkke nag yéen na ngeen de xoolal ngeen góorgóorlu de yéen waa Mbàkke en tout cas kontaan lool suñu xel gën naa dal maa ngi santaat bu baax a baax sëriñ bi di sant kilifa diine yi fi teew yépp salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar